te foofu. da ngay gis koo xam ne eh, ku nekk ak sa problème benn fekk benn groupement. ñu jël boo demee sa am na société de communication ñu ñu yoon euh, yónni am ñoo xam ay marchand de parrain lañu dañuy wër di jaay parrain. waaw am naa 3000 parrain. waaw bëri bu ñu la koy jaay kii jaay ko kii. Eh, mooy waral doublon yi jaay ko kii Bougane moo ne woon jarul ngay dem da ngay yónnee say kii rek. loolu moo tax boo yónnee dañ lay éliminer que da ngay da ngay bëri ay doublon parce que bu ñu ko jaayee ci sa maria bu ñu balee balaa ngoon ñu jaay ci ñaata groupement de femmes lañ dem ni leen ni leen seen carte ngi noonu gis nga ci ci éducation nationale bi mu fi mujjee li indi coow li dañoo wax ni dafa am ñu dem ni dañuy recruter ay jàngalekat eh, woo booy yi ne leen ku ku ma paranel dañ la booy ci recrutement bi gisal loolu. et puis ne Moustapha Diagne ko wax xam nga waaye yooyu yëpp da ci da ci xew. mais pour terminer ci. ñun yow yaa wax loolu. waaw ah, dégg nga maa wax nii dañuy recruter maa ne ko mais yéen comme ça dama xëy rek gis euh, gis affaire bi kii Moustapha Diagne nee na dañuy recruter xaw ma 6000 enseignants je ne sais plus. ku nekk am na ñoo xamante ne bii ba ci dañ ci bëgg a profité pour parrainer xale yi parrainer leen. day donc loolu la nga ci nga ciy gis mais.